waa kii du mbay moom daa sori. ay mère Pam ay boo ma dimbalee. jàppale ma ba kii nii defar ma li may defar ba ma am jëkkër naa la di ko de a ma ne la dugg ci biir booy dugg ci biir sa aaja te boo moytuwul nag boo boo demee ko dina am na lu ngeen doon biir sa aajo faju na yow daal wax ko sa lépp lépp lépp bu fàtte dara. ah waaw baax na xam nga man yaay sama mère te foo ma yóbbu ma ñeme. moo tax yaay sama doom fii moom fi andee moom dinaa ñeme. te bis bu sottee. Ah. doo ko réccu ndax xam nga man borom dugg dugg laa. ma xam loolu. yaa sama doom. <laughs> xam naa loolu yow daal xasal ba dugg ci biir rek boo xasee ba dugg ci biir sa aajo dina faju incha allah. incha allah. salaamaaleykum. sànq amul tamit lay seet de. amul tamit lay seet. yaa ngi am jàmm alhamdulilah sant yàlla wér jàmm rek alhamdulilah naka coono yi jàmm rek alhamdulilah sant yàlla jàmm rek alhamdulilah jàmm rek alhamdulilah démb bi ma lay woo téléphone sama doom ji laa doon ah, wax ah, <coughs> sant bi. lii la lii lii lii da ngeen def ak coono. <coughs> jëlal fi benn per. waaw sëñ bi moo ngi. Ah, déedéet déedéet <laughs> kañ xam naa lépp. macha allah xam na lépp. waa kan moo def jëf ju ñaaw ji yow de dëj gu méttee méttee méttee metti lañ la dëj mu ngi nii jël li nga xamante nii moo di yàqu xaj suul ko ci almeer dëj la dëj gu metti ñi la bëgg bari nañ mbirum jëkkër du moo la fi indi mu ngi nii may seen mu nekkoon sama tànk de ma ne ku ñëw day dem yow lii boo yéexee sa bakkan xaj na ci léegi nag loolu am naa lu ko mën a saafara li ko mën a saafara nag man samay garab wax dëgg yàlla du du ma ko wanteer te duma ko du ma ko duma ko asaaloo ndax man xam naa li ma mën xam naa li nekk ci man waaw garab bi nag deux cent mille laa koy defaree te li muy sax yow la nag ndax meer bee tax sama papa xaalisu location bi mu jox ma ku ma dem fay ci bi su ma ko joxee sëriñ bi ne mbaa du ma am problème waaye ax garaaw ndax jëkkër jaar na ko. comme 200000 nga wax man dayroon naa fi xaalis li ma si jaaxal nag mooy xaalis bi dama koo moom. déet boo moomul da bul forcé man damaa war a sa gont dem Mauritanie ndax dafa am yeneen liggéey yu ma fay xaar dangay bàyyi ba ma ñëwaat nga tombeeg nga nga gën a am jot tatal ko bu ko defee incha allah maa ngi fi. wax dëgg yàlla moom am ma patience boobu. Mhm. parce que sonn naa trop fu nekk dem naa fa. Mhm. instant bii nii moom yow sama yaakaar. Mhm. léegi damay jël li ma yor fii nii rek ma jox la ko yor naa fi cent cinquante mille. ah déet déet déet xam nga euh, deux cent mille rek lañ koy defaree xam trois cent la woon sax waaye kii li ñu xamante la muy soxna si du dëgg. ah bi man danga may jàppal parce que man étudiante la formation lay def yoruma xaalis te lii ma jox nii xaalisu jàmbur la. Ah, dina yéeme de waaye yàlla baax na. Ah, gis nga kii boo yeggee sa kër aha waa kañ waa kañ moom mooy ñaata fanweer yi waaw waaw du mat na mat na waaw gis nga boo yeggee sa kër nanga fexe ba nangu ut butéel bu toll nii nga def ci ndox bi muy waaj a fees nga dugal ci lii di ko yëngal di ko yëngal di ko yëngal ba mu yëngalu nga di ko sangoo juróom-ñaari fan ba ka juróom-ñetteel ci kàttanu yàlla ah bu la milliardaire takkul it millionnaire dina la takk. incha allah de eh, utal foo foo ko denc balaa moo laal kii parce que kii la daal du dëgg waa kañ góorgóorlu rek na na na ko defee ni ma la ko waxee nag. d'accord ko sangoo juróom-ñaari fan ba ko juróom-ñetteel di nga ñëwaat fii. ah am yàlla na yàlla defar lépp ci kàttanu yàlla. maa ngi ñëw dem jërëjëf. nuyul ma waa kër ga bu baax a baax. te nga góorgóorlu waa kañ waa kañ léegi. li mu la ko waxee nag nga defee ko noonu. waaw boo ko defee noonu bu soobee yàlla doo ko rëcc. incha allah defee ko noonu de. naa ko defee noonu bu soobee yàlla. kon baax na man na xoolal dafa am lu may def lu may jox loolu moo tax. maa ngi ñëw léegi dégg nga. waaw incha ma sa yaay. dina ko ma ne ma ne xam nga ni xaalis kenn ko liggéey kat dañ koy lijjanti ah. ah waaw. Ah, alors. ana kii dem na. waaw dem na dem na dem na. waaw léegi yow sa commission bàyyi ma jox la vingt mille rek. vingt la. vingt duma laal vingt mille. vingt mille mooy la pour la may laal vingt mille yow da dof. yow bu ma fontoo de. ma ne xam lu ma lay yëgal duma sa morom mënuma laa indil ay client chaque jour nga may jox ay cinq mille ak mille francs looloo fi jeex. yow teel nii. duma ko laal. yow xam nga la ñi. ñeenti junni laa lay jox de. ma ne bu yeboo nga jox ma juróomi junni du ma ko laal laaluma loolu laa la wax du ma ko laal. yow léegi loo bëgg a laal yow. man waaw da nga koy xaaj ci digg bi. man ma xaaj li ma xale bi jox waaw waaw. yow dama yaakaar da ngay da ngay waaj a dof. yow mi la ñuy wax da nga eh kaay kaay munoo dem dem doo demee noonu de xam yow xam nga ma bu baax a baax. pour ah. ma ma ne tegal fii. yow xam nga wéeroo. ma ne ah yow. léegi loolu. ma ne nga teg fii wala ma bu ma génnee nga. teel teel. trente mille nga ni teel yow dootuma liggéey te te teel teel. li nga may teel. yow dama indi la client jeex ma. <laughs> ah sëñ bi. waaw ah ani affaire yi. yow xanaa bi dix mille laa la war a jox ah. waaw ah, dix la doon doon mais tey moom na ëpp loolu nag. <coughs> tey du ma ko laal du ma laal dix mille tey dégg naa sa discussion ak maire bi. yow sama discussion lan moo ci sa yoon. eh déglu ma. yow ubbi ak tëj laa la sant. yeey nit a ngi liggéey. journée ba mu jeex ñu fay la ñeenti téeméer yow ma jox la ñaari junni. sëñ bi teel lamañ du lekk morom ma te ñorul déglu ma. mag buy naan ndox mu tàng suukar saa tax. yaa ngi dégg bu may tëj ak tijji. dara nga tax na mbuus tooy. ma ne teel nii laa la wax. na tooy. woy laa sëñ bi déglu ma xoolal seen Bolt mi ngay dégg. maa ko dàq daw ki fi jógee léegi. kan soreegul samay tànk yi. waaw dabi ko wax ko li nga nekkee ci dëkk bi lay def na mbuus tooy. taxawal nga. ñeenti junne gi ne teel. teel teel teel teel teel moom la teel ah teel te yow bu ma la gisati fii dégg nga. deux